سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم لن دي نيو شي نيو بيغن سل دي لن زياري بباخ دي جيتل شي نيو بيك زياري بي الخليفة العام للطائفة المريدية الشيخ محمد المنتقى دي نيان سنو تبارك وتعالى مو ويرلكو سموكو ba li mu bëgg liggéeyal l'islam lépp bëgg ko liggéeyal xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba mu liggéeyal ko ko te ñu and ko ak mom di len ndokkeel bu baaxa baaxa baax ci wéru mag wi nga xam mom lañ tambali muy wéru safar di wéru barkel di wéru magga magga mag ci ñun ñukay wajal di ka gatanu motax tax kamil, maktabatu cheikhul khadim baaxo at mu jot ci wajtaayu magal googi ngir téru ko tatagal ko ñu baaxoo di amal ay waxtaan ak ay jataay xam-xam yoo xamante ni bi jubluwaay bi lépp mooy tasaare njàngalem Cheikhul Xadim ba ñëpp gën cee mën a jot gën cee mën a jariñu moo tax at mu jot ñuy taxawal ay waxtaan di di ko def ren nag ñu fas yéene ko tàmbali tey jii ci ñaareelu fan ci weeru safar wi fas yéene ko ubbi tàmbali ko ñu tànn thème bu am solo boo xamante ne bi mooy alxidma mooy mooy al adabul mardi moom lañ tànn maanaam teggin yi ñu gërëm ni nga xamante ni noonu la ko Cheikhul Xadim jàngalee ndax dafa doon lu am solo loo xamante ni bii jamono laaj na ko ndaw ñi soxla nañ ko moo tax ñu tànn thème boobu bi fas yéene koo def ay thèmes yu bëree baree bari def ko ay sous-thèmes yoo xamante ne bii danañ ko mën a traité ba mbokk yi mën cee jariñu bu baax a baax a baax kon loolu lañ fas yéene tàmbali tey jii nii ubbi ko ci ubbite li nag ñu am mbégte dalal suñu kilifa. sunu sëriñ ak cheikh Mouhamadul Mamour Mbacke moom cheikh Mouhamadul Fadal ñu jagleel ko bis bi ngir mu ñëw ubbil ñu ko ngir ñu barkeelu ci moom ci taxawaayu am solo yi nga xamante ne bi moom la ko sëriñ bi dénk mu koy taxawee ci wàllu alxuraan wàllu daara yi kenn ku ne xam ne yëngatu yi mu ciy def ak nos gi ko nos ci dëkk bi ma mu doon lu ko loo xamante ne bi kenn ku mi ngi mi ngi ciy teg bëtam. loolu moo tax Cheikh Moustapha Diatre mi nga xamante ne bi moom lañ dénk barab bi mu jagleel ko bis bi ngir mu ñëw ubbil ko ko. ba ñu liñ ciy séntu lépp ci barke ak njëriñ ñu mën ko cee am moo tax ñoo ngi koy dalal bu baax a baax a baax a baax ci barab bii nga xamante ni bi barabam la di ko tatagal di ko dalal jàmm ci di ko masawu tamit ci coono yi ndax xam nañ ne jamono ji jamono ju tàng la heure bii nga xamante ni tamit ci la ñuy def jataay yi heure bu tàng la waaye li ko waral rek euh, di ko jégalu bu baax a baax li waral loolu tamit mooy euh, ñi nga xam ne ñooy jàllale euh, waxtaan yi ci site internet yi. Eh, ñu ci bari dañoo wane ne heure bi lañuy disponible te ñu bëgg tamit mbokk yëpp man cee jot ndax xam nañ ne jamono ji laajut jamono eh, laajut dajaloo ñu xam ne buñ ko jaaralee ci jumtukaay yu xarale yi mbokk yëpp danañ ci mën a jot ci anam bi gën a sell moo tax it ñu nangul leen ko ànd ko ak ñoom kon ñoo ngi jéggalu sëriñ bi bu baax a baax a baax ci eh, waxtu tàng wi nga xam ne ci lañ ko yëkkati di ko massawu dalal jàmm xanaa dika ko jox kàddu gi rek bu ko defee mu ubbil ñu jotaay bi ñaanal ñu ci bu ko defee tamit buñ noppee ñu wanaale ko benn kaamil bu am solo boo xamante ne bii moo ko bindaloon ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ca jamono yu yàgg yàgg muy 1984 muy kaamil bu yéemee boo xamante ne bii eh, ku ñëw ci daara ji bañ wan la ko da nga gis ne eh, kaamil la boo xamante ne bii sellaay bi ak rafetaay bi fu ko nit takk rek weesu na ko yaakaar naa kaamil boobu eh, man la ma ci doon xalaat bañ ma ko njëkkee wan. mooy kaamil bu ñu war a tasaare la bu ñu war a móol la ndax rafetaay gi ak sellaay bi foo ko takk rek weesu na ko xam naa ne sëriñ bi sax yaakaar naa xëy na euh, fàtte woon na ko waaye nag mbokk yi ne ci daara ji fan yi bi ñuy wër kaamil yi di ko euh, dajalewaat ci lañ ko gisee euh, génneewaat ko wane ne daal kaamil bi daal Cheikh Mamour bu ñëwee danañ ko ko wanaat ngir am gum am solo ak sell gum sell moo tax ñu ngi koy dalal bu baax a baax a baax a baax di ko jox kàddu gi boo ko defee mu ubbil ñu jotaay bi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أسلف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين بوكي جولي تي في تاوي بوكي طالبي غنا بونو سياري نيو سونو كليفة دي كليفة طالبي ييب دي كليفة مريد ييب سي أحمد المنتقى نيان سون بروم ياغال كو تي ويرال كو با ناليم نادال سيرن توبا ييب مو اغال كو في سونو كانام مو فيك نون ييب ماي كو جام دافال كو ak wér defal ko sutura defal ko lépp ba li mu bëgg def ci yoonu mu murit lépp mu def ko nu fekk kon ñëpp di nuyu itam sunu kilifa gi nga xam ne mooy seen bunt ci Serigne tubaab mooy sëñ Abo Mbacke mu Serigne Fallilou li ko ñaanal mu itam nii mu topp ci sëriñ bi di toppee ndigalam di dégloo déggalam di bàyyi ay tereem suñu borom yàggal ko fi yàggal ko ci njaboot ki nuyu njabootu sëñ Fallou gépp ndax nu dañoo jàpp ni cër bu ñu jox rek jëmi sëñ Fallou tax ñu ñu ko jox ndax dara kon nag moo tax ñu jiital nuyoo bi ci moom ginnaaw bu ñu jiitalee Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp di nuyu itam sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ni kilifaam gu tedd ga Cheikh Abdoul Ahad moo defaroon barab bi jagaleel ko alquran ak xasaayid muy lépp loo xam ne lii lépp sëriñ Touba ci ñaar yooyu la nekk ñu ngi koy nuyu moom di nuyu njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp waaye di nuyu murid yëpp njabootu sëriñ Touba gépp ñoo ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm euh, di nuyu itam sëriñ Moustapha Diatara mi nga xam ni mo jité barab bi kilifa yu tedd yi tek ko fi te mérito ko lool ya-, yeyoo ko lool ci wàll yépp ndax ci ci wàllu juddoom ak ci wàllu jàng ak am jangam ak ci wàllu léppam yeyoo naa nekk ci barab bi kon moom itam noo ngi koy nuyu di nuyu uh, njabootam gu sell gii fi ne nga xam ne ñoo koy toppatoo ñoo ànd ak moom di toppatoo liggéey bi di leen sant bu baax nag ci cër bi nga xam ne nañ ñu ko te jàpp ni sax noonu xaw na na jomb ndax ay taalibe rek lañ yu xeebu yoo xam ni bëggul lu may ngërëmul sëriñ bi euh, li ci gën a sant nag ci mawdo bi nga xam ne moom lañ jël ngir waxtaane ko te mën naa ko tënk ci loolu gàtt rek moo di taalibe moo di taalibe rek al arabul mardi yi moom foo ko dégg sëriñ bi wax ko rek moo di taalibe euh, kon buñ tànnee mawdo bu toll noonu jagleel ñu ko amuñ lu may sant ci yàlla baax sant ci sëriñ Tuubaa sant leen ci yéen ñi nga xam ne itam yéen ko tànn te jagleel na ko rawatina nag ki nga xam ne moom lañ koy defloo itam yeeyoo ko loolu moom itam muy sëñ Mokhtar Lo di sëtub sëñ Mokhtar Binta Lo moom itam bu ñu dee waxtaanee ak taalibe bi waxtaanloo ko ko te waajuram mel noonu ci bi loola yaakaar naa ni lu yàlla la lu lu lu ñëpp di bége la noo ngi bégg itam ci tànn gi ñu ko tànn te te te boole ko ak noonu noo ñoo ci sant bu baax a baax mu ànd ko sëñ Mouhamadou Diatara kon daal suñu xol sedd na guy ndax sëriñ Serigne bi daan wax ni jaamu yàlla mooy li ñu indi ci àdduna bàyyi nu fi ñaka jekk loolu daan wax li nan fonk li nga xam ne moo nu fi indi bàyyi nu fi te mooy jaamu yàlla topp teg ko ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nu it nu xam ni Touba gi li nu fi indi mooy euh, ak taalibe mooy dégg ndigalu sëriñ bi bàyyi ay tere bàyyi jëfe ko déglu ay tereem bàyyi ko loolu moo dig taalibe taal ak taalibe bi nag euh, du dara lu may sëriñ Fallu mas na ko wax sëriñ As Jaxate mi nga ne doon jàngal dafaa ñëw benn bis mu ni ko euh, bàggoon yee fa nekk ña jàng ña jàng nañ ndax joxa daayil xaaj mu ni ko waaw jàng nañ ko mu ni ko buñ ko jàngul nañ ko jàng buñ ko mokkul nañ ko jàngaat buñ ko mokkul nañ ko na nga def ko na def ni ñuy def alxuraan daanaka xanaa xamu ne as jaxate xanaa xamoon ni euh, nax ju xadaayil xaaj ak taalu bi kon nag rawatina bi ngeen ko tànnee mu mu mu mu nekk defe naa am na am na ci am na ci am na ci kii yi am na ci am na ci mawaade mawaade yi kon nag sant nañ bu baax a baax gërëm nañ bu baax a baax ndax ak taalib bi rek mooy moo leen yitteel ak taalib bi moo leen fi indi ci Touba moo leen fi bàyyi moo fi indi woon suñu maam moo leen fi bàyyi kon nag kuy waxtaane lu ñu ko fonkee ak nu ñu ko war a sàmme jagleel la ko kooku mënatoo fay ña la ko def ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaan ñu teewee ko nag ni déwén ci kenn bañ a manqué ñaanal Seex Muntaxa mu yàgg fi te wér ba màggal gii ñu jub suñu borom def ko muy màggalu jàmm ak salaam ak xéewal te xam nañu sax loolu lay doon ndax moom li ko suñu borom may te may ko ci bis boobu te at mu jëm mu di ko yokk saa bu ne gën di yokk te la ci ëpp mooy jàmm waaw jàmm ndax sant euh, euh, jàmm mooy waral ak cant la ëpp mooy jàmm kon nag nañ sunu xel dal bu baax a baax xam ne ni mu nu jiitee ni muy waxee ak nun ni muy defee ak nun moom sëñ bu buñ ko jëfandikoo topp ko ci sàmm ko fan bëgg a àggali yoon yëpp dañ fa àgg te bii itam nu ngeen di wax itam moom it ñoo ci sant bu baax a baax ci feeñal gi ngeen ko feeñal ndax moom itam Cheikh Abdoul Ahad lañ ko bindaloon dama ko bindaloon ab kaamil ci sama coobareel bopp dem jët ko ko mu jàng ko daal ne ma kaamil bi yaa ko bind ci sa coobare ma ne ko waaw mu ne ma damaa bëgg a bindal beneen ci sama ndigal muy kaamil bii ngeen di gis bi ko bindalee ba yët ko ko mu mu ne mu ne ma toogal foofu néeg ma ma dem ci barab yi am fakk boobu sëriñ Xaasim Mbàkke defe naa moo nelaw ñu doon ko taxaw mu ne ma toogal foofu ni ma dem ba ca bara bi ba ñëw waxtaan ak yow bi mu demee ba ñëw mu ne ma kaamil bi nag dama la ko yóbbul daaree kaamil ngir mu seeree la fa ci sama am kon nag man sax wax dëgg yàlla jàppoon naa ni eh, ndax yàggu jamono yàggu daan muy su ko sàmm ba nëga ni waaye kon nag suñu xol sedd na ci guy ci feeñal gi nga ko feeñalaat ba ba ñëpp mën ko teg bët ñoo ngi ci sant ñoo ngi ci sant yàlla di ci sant Serigne Touba waaye di ci sant Cheikh Abdoul Ahad itam bu baax a baax di ci sant suñu waajur ba nga xam ne lépp lu ñu defal ci lu baax lépp lu ñu jagle ci lu baax moom rek moo ko jegoo moo ko yooyu muy ma Madul Fadal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mbacke jërëjëf waaw dañ ko sotti waaw bëgg